ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha xalif général kullu murit di ñaan mu yàgg fi Mbàkke de ànd ak du jaare bu baax sunu kilifa giit sunu gannaaw nga xam ni tey moo tooge jotaayub Cheikh Mouhamadoul Amine muy Cheikh Mouhamadoul Moustapha moom Cheikh Sidi al Maxtaar nuy ñaan sunu jàmbaar ji Cheikh Sidi al yàlla yokki leeram te taas nu ci barkeem mbokku téléspectateur ma fàccoon Bichri ñu ngi fii ci dëkk bu tedd bu bari taarix di dëkk boo xam ne mëneesut a tudd yoonu murit te tuddoo ko muy Mbàkke Kajoor di dëkk bi nga xamante ne bii sunu jàmbaar ji Cheikhul Khadim fii la féete woon mook waajuram bu baax woo Maam Mor Anta Sali Mbàkke ba ni mu beree daara je ba ni mu tàmbalee liggéey yàlla bi loolu lépp fii ci Mbàkke Kajoor la xewe eh, li nga xamante ne bii itam mooy taarixu Mbàkke Kajoor ba tey muy dëkk boo xam ne euh, doy na sëkk ñu leeral ci ne mag ñu baax ñi àndoon ak Cheikhul Khadim fii la nekkoon ak moom euh, ñu mën cee xam wala ñu ràññee ci Serigne Adama Gueye euh, mu baax mi nga xam ni mu ngi fii ci Mbacké Kajoor ci armée yi Kajoor foofu la tëdd noon koo xam ni ci mag yi àndoon ak Cheikhul Khadim la bokk waaye fii ci Mbacké Kajoor it ñu mën cee jàpp taarixu ki nga xam ne mooy maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine fii la euh, jébbale ak taalibeem Cheikhul Khadim fii la yeesloo ci guy euh, ziar soriwu dara euh, mu mel ne nag mbokk yi jàmbaar jooju moom du Lamine nu xam ko mu bokk ci Kajoor ay maamam nekkoon fii ci dëkk bi nu mën cee tudd ku mel ne Serigne Sirelo Sanna di fii rek ci sunu wet eh, waaye tam nag mu doon koo xam ne doomi sëñ tubaa ji nga xam ni sëriñ Touba da koo dëloon ci fii ci Mbacke Kajoor mu ne fi moom Cheikh Mamadou Lemine eh, nekkoon fi ak njabootu sëñ Mbacke Kajoor sëñ mbakke Kajoor bokk ci mag ñi nga xam ni eh, moom rek la sëriñ tubaa daa woowee bàyyi moom sëriñ Mbacke Kajoor fii di Mbacke Kajoor fii la nekkoon moom itam ñu man koo xam ci ak njabootam ñu àndante woon ak Cheikh Mouhamadou Lamine ci bërëb bii fii itam euh, euh, jàmbaar ji ñuy fàttaliku mu Cheikh fii la bàyyi koo wuy ji boroomam euh, bayti fi ñuy wax bayti bu mu Cheikh Mouhamadou Lamine fii la nekk ci Mbàkke Kajoor waaye itam nag bisub tey bii mbokk yi ñu di ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal ñi ngi fii ci kanamu xalifaam bu baax bi di Serigne Moustapha moom Cheikh Sidil Mokhtar mi nga xam ne tey moo toogee jotaayub Cheikh Sidil Mokhtar waaye moo toogee jotaayub Cheikh Mamadou Lemine àndante ak njabootug Cheikh Mamadou Lemine Guèye nuy ñaanal euh, ki nga xamante ne bii mooy Cheikh Mamadou Lemine Baara te ko euh, ñu wax leen nag ne bi nu xëyee euh, Serigne Mountakha mi yilif murid yëpp gis ngeen ko noonu ñëw na fi léegi ci suba saa fonte ak Serigne Moustapha ak njaboot gi yëpp waaye itam nag yeesal ab siyaaraam. Euh, waaye tamit nag ak pas-pasam ci sunu jàmbaar ja euh, Cheikh Sidil Maxtaar euh, bi mu fi jógee itam njabootu sëñ Touba gi ñëpp ñëw nañ sëñ Ahmadul Maxtaar mi nga xam ne mooy xalifab daarul xuddoos te ku wax daarul xuddoos wax guy mbind moom itam gis ngeen ko léegi la fi jóge ñëw siyaarante ak Serigne Moustapha ñu ngi gis léegi itam ki nga xamante ni bi mooy xalifab Cheikh Mouhamadul Amin di Serigne Moustapha ah, Serigne Mouhamadul Amin moom Serigne Fallou moom itam léegi la fi jóge gis ngeen ko noonu ah, waaye itam mag ñu baax ñëpp ñëw nañu fi mbootu maam Cheikh Ibrahima Fall gis nañ leen fi ñu bàyyi ko di délégation bàyyi ko ci Serigne Cheikh Jëmb Fall mi fi nekkal Cheikh Ibrahima Fall gis nañu fi itam ki nga xamante ne bii mooy Serigne Ahmadul Makhtar moom Serigne Cheikh Awa Balla moom maam Thierno Ibrahima daamal Daarul Moxti ñëpp teew nanu daal ngir ñëw ci bisub Cheikh Mamadou Lamine saafoonte ak Serigne Moustapha mi toogee ab jotaayam télévision mu Fatihul Bichri ni mu leen ko baaxoo defalee ci événement yu mel nii yi bu ànd ak dogalu borom bi daanu ànd ak yéen ziar yi ànd ak yéen waxtaanu ah, Cheikh Mamadou Lamine weeg lépp rek ba dara du leen ci rëcc euh, bu soobee yàlla ma leen di jox dig daje ci kanam tuuti seen mbokkum taalibi Serigne Mourtala Gueye Géwél Xadim Rasul maa ngi feggoo ci caméra bi ak Serigne Fallou